Afrique ci jamono yi nga xam ne nekk itam mu ngi jàkkaarloo ak jafe-jafe yi nga xam ne am na ko ci wàllu kaaraange ak ak dalam té nam itam and ak li nga xamné mom modi jamm ak salam lolé nak la waxtané jamono bi fi nga xamné ni nak moom modi di bi yoon ñuy amal édition forum international bu Dakarou ci walum jamm ak li nga xamné mom modi walum karangé karange ci Afrique li nga xamné mom modi li di ah, ah, terrorisme ak mbirum karange ci biir Afrique jamono bi daa gàllagoose gossé taxna fi mu nek ni dal jotna ñu soppi li nga xamné ne modi doxalin bi rawatina nak ci ah, li nga xamné mom modi fu jamm bobé ak ñi nga xamné ñoom ñoo di waa Nations Unies euh, nga xam ne euh, wane nañu seen ak tële ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex lu ni mel ci biir àdduna bi nday firndeel na réew Afrique yi jamono bi jot na ñoom itamit ñu jël seen ay matuwaay dugal seen loxo ci li nga xam ne moom moo di bileeb xeex ndaxte am na ay euh, pexe ak ay ay naal ak ay tëralin yu bëri yoo xam ne day bokk ci li nga xam ne moom moo di xeex boobu ñuy xeex ñàkk kaaraange ci biir Afrique te dara waralu ko lu dul nag ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ah, ba noppi tamit nekk ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu ah, li nga xam ne daal moom moo di terrorisme ak lu ni mel yor ay ngànnaay te fu ne di fa def ak fippu fexe ba itam li nga xam ne moom la ñuy def moom Afrique mu mën see dugal loxoom am na nag ay kàngam yu bàyyi ko Uganda yu bàyyi ko Cap-Vert ak yeneen i dëkk ba ci ah, réewum Arabie Saoudite ñëw teew ci mi lépp ndaje lu ni mel yi sax bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Japon jawriñ bi nga xam ne moom la ñu dénk daanaka wàllu ministère affaires étrangères seen ministre délégué moom tam ba mu yëkkati ay cadeau nee na waa Japon si seen taxawaay ci li nga xam ne moom moo di wetu Afrique daañu def seen kéem kattan itam ba jàppale Afrique ci li xam ne moom moo di sàkku jàmm googu nga xam ne moom la soxla waaye tamit lépp lu jëm ci wàllum yokkute ak wàllum développement loolee nag jaarale ko ci tikkat huit nga xam ne nag dinañ ci lëkkaloo bu baax ak léewu Afrique yi rawatina sàkku jàmm ak li nga xam ne moo di seen karange mu des ñu xool fileeg li nga xam ne moo di ay liggéey yu ñuy amal war a jeexal fekk ëllëg li nga xam ne moom moo di laytaay ak waxtaan yi nga xam ne moom lañ fi saafanto ndax dana am njëriñ ci la xamne mom modi moo gi ñu nam ci walum kaaraange ci Afrique ak jàmm gi ñu fi mu donon Moussa puy fi ci centre international de conférence Abdou Diouf bu le lëkkaloo ci ak ki nga Omar Diouf ngir la DTV la